xana delu rek joxe ben précision bo xamanteni ay kilifa ñomako digal ni ma def ko précision yi itam dafa jëm ci sunu xadara bële ci Tiwaawan démb serigne mustafa bu serigne Cheikh dafa ñëw Tiwaawan laata muy ñëw li may wax déglu leen ko bu baax ndax du lu ñaaw te lu rafet rafet la waaye lu leeral la laata muy ñëw doomu Mansour Sarr la yónni bu sëriñ Muniru Sarr jarbaatam su ndaw soosu ñuy wax maam Cheikh te yëngu lool mu ñëw ni ma sama nijaay moo ma yónni ci yow nee na dafa bëgg ñëw ziar maamam te bëggul ñëw te du la ko yëgal te bu ñëwee dafa bëgg bu jóge ci rawdu bi ñëw ci ëtt bi ni woon nag naa ñëw wax la ko ma ni ko ah loolu day rafet na su ko neexoon ñëw def ko te duma ko yëgal su ko neexoo nit def ko te du ko wax ak kenn ci nun ndax péncu maamam la péncu baayam ñëw na fi ba tàyyi te yëgaluma ko ñëw naa ñu ni ma ñëwoon na dem na man nga kon bu ma ko yëgalee mbaaxam a tax waaye bu ma ko yëgalul woon it teewul péncu baayam la péncu maamam fii nag man lañ fi teg maa fi ne maguma fi waaye ñi fi magit ëpp ñu ma fi fulla ku fi sa baay liggéey sëriñ Abdul Aziz Al Amin liggéey na lu ni toll lu mu mën a revendiquer ci xàqu sëriñ Babacar <laughs> loolu mooy dëgg te du ko revendiquer nag mësu koo revendiquer man ko kon nga wax ko ni ko doon naa rafetlu penc boo fa gëjee fukki at ñëwuloo fa xëy bëgg faa ñëw am na noo fa war a ñëwee soo demee nga wax ko bu amee téléphone na woo cheikh bu sëriñ Mansour woo Babacar Abdul Aziz su ko mënee sax woo Mansour may magam di taawu baayam ca France mu wax leen ni maa ngi ñëw pour lii ma ne ko nga wax ko loolu mu ne ma ah de mënoo yow rekk wax leen ko ñoom ma ne ko déedéet parce que man sàkkuwuma ko moom moo sàkku ñëw gi moo toog ba mu yàgg mu ni war naa ñëw ci pencu maamam quel que soit alibi quel que soit l'alibi qu'il a pour le faire fin nali maa ni ko kon man sàkkuwuma ko wax ko rekk ni ko rafetlu naa ko mu xam ni ñëwin wi noonu rafet na yëgal leen ko ndax ñoo fi bokk nekk te man ñoom lay déglu ndax ñoo ma fi teg mu ni ma baax na kon su ma demee danaa ko ko wax xam naa ba mu demee waxu ko lépp parce que bu ko waxoon lépp li mu waxee dem ca Tiwaawan du ko ni waxe ma toog dix minutes après way juram Mansour Sarr ñëw fekk ma ca daara ja ni ma dama fore ci wewu ñay loo xamante ni xew na fii léegi Cheikh Tidiane sama moom nijaayam da ko fee yónni pour wax la ni dafee war a ñëw ma ñëwoon rekk dégg mu wax ma ni ñëw na wax na la ko waaye am na noo ko waxe ma ni ko Haj Mansour ñëw googu kenn du ni lu tax parce parce que lu jaadu la kenn du ne lu tax lu jaadoo jaadul mu ñëw fi pencu baayam la pencu maamam la seulement boo dema dema dema dema dem ba yëg nécessité wu delluwaat fa nga jóge woon kon moo lay wax ni tukki la bu warul am wala fi dañuy wax ni yoon woo xamante ni fa nga jóge woon fa ngay dellu siwaat jarul woon tukki yow nga rek ma ko waaye nag war na rafet na mu ni ma ma ko waaw sëñ Mansour yow su fekkoon ni moom ñëw na wax la lii doo ko digal li ma digal cheikh pour mu wax ko ko mu ni man ah, ko ci koo xamante ni ma ko man ba ma koy gëj a gis ca dëju baayam laa ko gëj gis ñu àndandoo denc góor gi jaal ko ànd ak moom dëj bi yépp ma ne ko ba mu ca jógee keroog laa ko gëj a gis xatta yow mi na xaar man ko waaw diggante bi sëriñ Abdul Aziz nelaw na fi te jaalu nu ko kon ñëwaat fii dinu wax ay waxi ñëw leen ci penc mi pour lan ñu ñëw déglu ko rekk mu wax ay waxam dem amatu amatunu jot googu man awma jot ga ane ko lima wax nak fi ba bufte di wal ku ñëw ma ne man li moy sama yëg-yëg na wo cheikh rafetna na wo babakar rafetna na wo sax kanen wala ji ko yamale ci ñom sax ba mu fa jógee dafa dem ci soxna daba mbay bu soxna umul xayri wax ko ko daba bi mu ñewé ma wax ko lima wax man suur ni waaw yéen yéen yeenay mak fi ci kër gi su lu mel nii amee te moom mu jaar ci yoon wudul yoon wa la gën mooy ñu teg ko ca yoon wa ni ko sëriñ bi nii moo gën a rafet moom maraanag su fekkee ne daf ko ragal a wax nijaayam kon jarul nijaayam di ko yónni mu dem wax ko la ko arrangé ca wax ja irresponsabilité la kon lu takk yaa ko taal daba ni ma waaw nun daal li ñu mënul xam mooy yéen lu tax kër gi moom daf fee a ñëw ma ni ko kenn weddiwul ak ñëwum fi ma ni ko yéen nii su fekkee ni am na dara lu xew yéen a ko taal ci sunuy diggante parce que ma ni ko yéen bi ngeen di mujjee wax ak moom mooy jamono bi mu leen dee takse naan leen bantu law be ngeen yoon di ko natt ci seeni pay te yéen la ko wax yéen ñi ko teeru tey kon kañ warul am problème na ñëw ziar maamam dépp loolu amul problème ci kër gi pour pourquoi ngeen bëgg koo def problème parce que dañoo war a bàyyi noonu sunuy aajo ñëw pour taxaw di ko déglu mu wax lu ko neex te li muy wax dara concerné wuñu ci xadara ba la muy doxe mu ngi dox boobaa ba léegi sëriñ Abdul Aziz génn na àdduna kenn ku jàmbat lenn ca kër gi amul amul la mu daan def ba léegi nun njaboot gi moom lañuy def man mii bokk naa ci ñi xat sunu tànk tubéy jot sunu ndigalu kilifa sëriñ Babacar mu ne ma demal nga liggéey ko bu nu ko liggéeyee ba yeggal bu dikkee kër sëriñ Babacar si ñoo koy jariñoo kenn nu cay fekk muy magam sëriñ Mansour ca Paris kon kañ moom amul lu muy wax foofu ñun yëgunu wéetaay parce que sëriñ Babacar feesal na dell këram yëgunu fa benn wéetaay parce que xam nañ ni lu ñu nekk ñoo ko àndandoo di ko doxal waaye mag ñee koy contrôler ba mu jaar fa mu war a jaar te nun duñ ca doon dara kon su amee mu waxee noonu mu waxee démb wax ni waaw Moustapha laa yónni wax ko lii ak Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane wax ca lii kon nag bu ma ñëwee te gisuma leen day mel ni man bëggoon naa jàmm waaye nun noo bëggul jàmm jàmm boo koy dox dafa am yoon dafa am yoon ak doxin te kenn du ko waxtaane ci pénc dañ koy waxtaane ci biir doog a génn ci pénc nag yëgal waa pénc ma ni ah li fi doxoon dañ na lii dong la man nag dama am warteefu leeral parce bu ñu la tuumaalee ci lu dul dëkk dangay génn ca pénc ma leeral waa pénc ma ñu xam ni moo yàq yoonam ñamu fa fekk ay njaboot lañu naam waaye fekku fa ñam fa war a fekk xadara ba nag mu ngi noonu nangami at a ngi luy ñëwul ca kër ga te teewul mu ngi doon doxal li muy doxal nuy doxal sëriñ Babacar li ñu bëgg ñu doxal ko te yàqul kon dellu siwaat gi pour lan pour sonnal nu la wala pour teg nu problème te man awma jot ga je me préoccupe plus ci li nga xamante ni moom la ma sëriñ Babacar tegtal sëriñ Abdul Aziz tegtal ma ko loolu laa gën a ittewoo ci ay toog di déglu ay xuraafaat ay gént ay n'importe ko je n'en ai du nu ko won nag benn benn ñàkk sago walla ñàkk yar moom xam na bu baax bu nu ko ëppul yar moom ëpp ko bu nu ko ëppul yar nun ñii moom ëpp nu ko ndax koo xamante ni jur wa nga am nun sunu wayjur sëñ Abdul Aziz làmmiñam wu ñaaw teggikuwul ci moom ba mu ngi ci bàmmel ba bët ki démb kër jëmb mu ngi koy yekk li mu koy yekk ci koo xamante ni génn nga àdduna orma rek moo war ci yow soo amul nag sagoy sagoy xam ni nit bu deewee teranga rek moo war ñu di ko ko waxal te yow bis bu ne yaa wax orma lu bon lu ñaaw kon da ngay xam juram laa yakar dem tàllal ko samay loxo mu jox ma werd yakar Serigne Cheikh yaakaar ba ma amoon ca ba ci man Mansour mi magam mom laa def tey muy kilifa parce que fa te Mansour luy orma jox naa ko ko te moom joxu ko orma ba kon nan la ñuy yilife je rekk ñu ngi baalu àq bu baax dafa jaadu woon rek ñu leeral ko sant nag El Hadji Dut ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaayam di ko jaajëfal ci ñëw gi mu ñëw fekki si lii bisam la moom lañ ko séddoon ñaari at yi ñëwul waaye teewu koo def li ko war faneen mu ngi koy def bu baax barki démb cité na leen ñoom ñëpp waaye jaxas la jaxas famille yu jàmbur sax boo gënee wax ca lu baax boo ca mënula wax lu baax bàyyi alaaji mbay doon ne ku ne xam ne li mu doon ci kër gi ñoom ñii di ay ndonoom xalifa di seen mag mere gu mu mere xalifa bu mu war a tax mu ñëw ñaaw di wax ci ñii loo xamante ni wóor na ku déglu xam nga ni am na ku muy waxal bu leen ko nangu faut s'en fier déedéet bu leen ko nangu bu leen nangu mu jaxase leen faut jamais l'accepter Pape Malick moo ci gën a doon ndaw moom xelam xëy na waaw hello artiste voyez waaye man woluna len yow ak Cheikh Tidiane faut jamais accepter qu'il vous mette wolen ko nangu continuer len ca na mu meloon la ngeen don def yéen a koy def khalifa moy sen bay taw bay moy bay bu ko ñàkkee ben orma taxaw leen ci lu ngeen war a taxaw yéen a nga ca loolu bi may ñëw laa wax ak moom waaw xalifa waaw kay bi may ñëw laa wax ak moom si loolu dala ci sa xel ah kay bu nu jaxasewul ba nëgë ni ah kenn du nu jaxase moom la ñu def suñu jërëjëf هذا ولله التوفيق والسلام wa ورحمة taala wa barakatuh.